asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 7 février 2020 ñu ñëw ci ci yëglikaay yi moo xam sunu lamb la war a journal bi nga xam ne nii moo di record bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom dafa xëy ñëw nee na 174 jours maanaam ba Modou Lo amee ndam ci ko Eumeu Sène ba tey maanaam téeméeri bés yu tegal juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne nii depuis boobu ba tey Modou Lo mu ngay daw gos ak droite ngir jot ci reliquat bi nga xam ne nii toll na ci ñaar fukki million ak juróom yoo xam ne daal promoteur ba yoral ne ko ko boobu ba tey mënu caa jot yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy tey ñëw dinu ko wax waaye mu mel ni ki moom Modou Lo itam combat ba nga xam ne nii moom la war a bëri ak Ama daal daa mel ni ba tey saa ñu xëy day gën a lëndëm di gën a fulu loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey xamal ñu ko ndax nee na lii nga xam ne moo di kaawu ba ba war a bëri ak Modou Lo ñoom Willy Nick Nicolai la ñuy toppatool maanaam daal moom la ñuy waxanteel ki nga xam ne ni nag moom mooy Modou Lo daa mel ni li contrat lii ko ak Luc Nicolai muy loo xam ne daal sunu làmb xëy tey ñëw dina ko wax muy lu doya doya doy waar ba tey bu nu continuer ci coow loolu wala wax jooju nga xam ne ni mooy combar royal boobu dem ca journal bi nga xam ne moo di record dafa xëy nag ne na Ama lan moo tax ba tey maanaam daal voyagé wul dem yokki doolem maanaam wàllum entraînement yëglikaay bi di record ci gëstoob Abou Ndour moo moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki fi mu nekk nii nag daa mel ni ama moom dàqul dem fa nga xam ne nii moom moo di ci États-Unis mu mel fi mu nekk nii loolu yëglikaay ba xëy na wax nu ko ka mu war a bëreel nag muy Modou Lo moom daa mel ni ba tey ci gëstoob Abu Nduur daal mu ngi ñuy ne lagros ga nga xam ne moom la jëloon def ko baas di fa tàggate daa mel ni fi mu nekk nii daal Modou jóge na fa wëri feneen ba tey yëglikaay boobu di record moo xëy ñëw dina ko wax keneen koo xam ne nii moom loo ci bëgg a dégg wala boog ña ko yore wala ña ko seq daal daa mel ni ku doon xaar ne day bàyyi lamb wala Brésil dina tax dootul bëre daa mel ni waa Fass moom gëmuñu loola te ànduñu ca loola muy lagros mu mel ni ki nag sunu làmb xëy na xamal ñu ne daal waa Fass recruter nañu ay médecin yoo xam ne nii daal yu bees teq la ak sax ay technicien ngir mbirum lagros moomu ñu mën koo traité daal maanaam faj ko ba mu wér ndax ñoom dañoo jàpp ne xale la boo xam ne daal espoiru làmb la te war naa yóbbu écurie Fass ca kaw ca kanam moo tax daal mu mel ni ki waa Fass moom ut nañu nag fi mu nekk nii moom ñoo xam ne nii dañ koy traité spécialement ngir lagros mën a dellu siwaat ci làmb ji yëglikaay bi moo xëy ñëw dina ko wax ka xam ne bëri woon na fekk moom ba daan ko muy Modou Anta bu Thiès moom Modou moom mu ngay xëy di wax am na ñu muy waxal daal nee na ñoom duñu nangu ñu def leen li nga xam ne nii maanaam ñu di leen jël daal di leen sacrifier def leen nagu sarax wi Modou Anta loolu la ko wax keneen koo xam ne nii moom ab promoteur la di Assane Ndiaye mu mel ni combat ba mu siwaloon ne taxaw na doxoon ci diggante Kalmu Ndour ak ki nga xam ne nii moom moo di ngel jon te Kalmu Ndour taxaw ne dootu ko bëre mu mel ni Assane nag nee na ko li leer ba leer day loolu nga wax lu la ci fekk rek xamal na yow la moo tax yëglikaay bi xamal nañu day Assane mbaadu plainte daa mel ni sax ca loola la jëm mu ngay menace daal ngir def plainte am ndax nag daa jàpp ne mbir mooma moom nañ ko bëgg a doxale ak moom du ko nangu tey suba waxi noppi Assane Ndiaye la ñu yëg li kaay bi xëy wax ne moom moo nekk ca loola di ca wax keneen koo xam ne nii moom ka mu war a bëreel bu xëyee démb ne ko tere womaa nelaw muy ñaq jariñoo ak Alioune Seye Alioune fi xëy déem ne ñàkk terewu ko nelaw ba yandoor ba géntal sax bu ko neexee ñàkk ne ko ba mu neex la géntal waaye li leer ba leer day yow sens amoo ko sama kanam benn sens boo may daane daal amuloo ko du ci xeex du ci bëre duy ci ay at ndax maa la gën a doon gune loolu la ko ñàkk xëy tey tontu kon tontu du forox mu mel ni ba tey combat booba ca bis booba lamb ja ca nar am jeneen muy diggante Eumeu seen Junior ak Bour Sine Mbaye Diallo moom nee na techniquement ama seen Junior moom moo ëpp avantage bu baax a baax mbay jàll nag bu Pikine moo xëy tey wax loolu nee na daal kii di Eumeu Sène Junior moom moo ëpp wàllum technique ki nga xam ne nii moom moo di Bour bu bawal loolu ay waxam la yëglikaay bi tamit xëy na tey wan ñu li nga xam ne nii ñoom ñoo di waa école de lutte Balde mu mel ni ñu ngay yëngatu di yëngal maanaam daal di defar seenu yaram ci wàllum entraînement waaye buñ fa jógee dañuy dem ci li nga xam ne nii nag moom moo di lambi simple ja mu mel ni ki nag 72 heures ya nga xam ne nii daal moom la Amadou sar organisé ca Palmarin jàppal juróomi nag ak huit cent trente mille francs daal loola mooy mise ba yëglikaay yi xëy nañ tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba ci record itam xamal nañu ko kon daal li leer ba leer moom soixante douze heures palmarin daal nag ya juróomi nag la teg ba toll ci huit cent trente mille francs waaye li leer ba leer teñ war cee bàyyi xel te du dañ te du fi jóg ndax wax yàlla yàlla ne ku ñam dund da nga ñam dee ku tooy da nga wow moo tax nag tey daal ñoxor mi ngeen xamoon mu nekkoon fi te jiite woon wàllum arbitre yi daan leen teg ci aw yoon moom la sunu borom bi jël ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko jàlle képp koo xam ne ci làmb ji nga bokk di ci yëngutu wala sax sportu Sénégal gi yëpp ndax nag àddina tëdde noonu yàgg ñi fi des nañu bàyyi xel nekk njàmbaar bàyyiwu leen fi waaye ña dem itam ñàkkuñu fu la yàlla xamul mbubb mu rëy xamul xaalis bu bëri xamul kër gu rafet xamul oto xamewut néegam ñax ak fondé ko laax saa yu bés ba jotee rek da lay jël nan ci bàyyi xel waaye ku dem yàlla na la yërëm ti jéggal la barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm leen ziar Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si àjjuma ji maa lay fay Ndeye Coumba Fall di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a si àddina bi rek ñu ngi leen di bégg di leen ziar leen ñaanal jàmm te di ko saaku si ñoom. Babacar ñëw na ak sunu laam sunu laam nag nee nañu euh, Modou Lo ginnaaw bu mu bëree combat royal bi ak Eumeu Sène euh, li nga xam ne euh, bu mu feeñee si stade Léopold Sédar Senghor 25 millions yi nga xam ne promoteur moom la ko deseel boobu léegi mi ngi xaar ginnaaw 174 jours Babacar. maanaam téeméeri fan ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne nii ba mu bëree ba tey mu ngi topp ci xaalisam pour jot ca 25 millions muy të ah loolu nag moom nee méttiwul neex na ma safur laa ma ne neex na sax. kon maa ngi jéggul ma metti na laa bëgg a wax yaa ngi dégg parce que yaakaar naa ne ku sañoon soo bëree ba pare jot sa xaalis wax dëgg yàlla te 25 millions yaakaar naa ne nag ah ku ko ci a jot muy man ak yow ak ñëpp ñi seetaan sax ku ci jot 25 millions dana am lu mu la fattal ci ay buntu kon naa ne daal ah euh, na loolu ko ku yëglekaay bi waxee xëy na promoteur bi jamono ko jàpp parce que tamit xam nga combat boobu dafa nekkuloon combat wu fawukaay combat la woon boo xam ne nii moom dafa am loola fi di wax. tuñam gileem lang na waaye waddul de loolu mooy moo ci nekk ba xam ne nag làmb damay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteurs yi nga xam ne dañuy ñëw bees ci làmb parce que Sénégal yëpp xam nañ làmb mais niveau maanaam promoteur xam il faut nga rampe ci maanaam jaar ci ci ay mbappat tëgg ay làmb fii lu ne ko ci pour boo ñëwee lu bëri dina la ci mën a dimbali mais am na noo xam ne soo ñu ñëwee ci làmb des fois yi mën na la ci fekk ñaana luñ ko kenn bu ñu sañoon ku ci ñëw da ngay mais xam nga tey Moustapha Diop ba muy nekk ba muy ñëw lii nekk loon yéeneem bu sañoon bu paree ku ne daf lay jox lam la yoreel mais nag làmb mu wax doy waar genn xeet doy waar goo xam ne nii newuma du lu ñuy jàng de waaye waris na koo gëstu ba jéem koo xam ci côté boo ciy ñëwee nag rawatina nag côté boo xam ne financièrement ngay ñëwee di wàllu jël sa xaalis si dugal Modou Lo nag ci li ñu xam ah, nekk na ni bi nga xam ne nii ñun ñun dëkk nañ ko micro mu bëree ak léegi ba tey ay yoon yoon waaye dégguñu sax mu wax lu mel ni ki noonu wala mu jëm ci parce que moom boo koy gis tamit da xam nit la xam ne nii daa mel daal nit bu am sutura la par rapport ak ni ñu koy gis xëy na nag terewul nag Euh, presse bi moom danañu gëstu xool laaj dugg ci ay ruq ba ñëw indi seen ay xibaar mais xam naa ne daal li am solo te am solo mooy ah euh, Moustapha Diop daal ñu ngi koy ñaanal yàlla lii mu réglé ko. tey Babacar est-ce tey nekkul yoon tey ñu fekk si euh, CNG ndax CNG nee na euh, est-ce que ñëw tamit di déclarer cachet sponsor xëy na tamit dina jàppale mbër yi pour ni mu jot seen xaalis sponsor yi. waaw parce que lii ñu ab fàttaliwaat xam naa wàllum sponsor lay doon muy ay dessous de table comme ni ñu koy tuddee taal taal nag bu téyee tàkk côté bu ne lañ koy uppee ah ngeen mu mën a boy bu fekkente ne nag CNG mën na ci am solution mais nañ ci waxtaan ak promoteur ne nii ay signature leer nañ lay doon ba tey xam nga mbër tey kenn yoralutu ko parce que am nañ délai bu ñu lay jox balaa ngay tëgg waaw di ngeen di reliquat bi seen i avance itam dinañ ko jot bu buñ paree dinañ leen jox seen ay reliquat ak lu mënta xew mbër amatul problème boobu xëy na fi problème bi des nag mooy ci côté sponsoring bi dessous de table yi ak yooyu mais nekk na mbir yoo xam ne nii daal ñu ñi sëq làmb yépp ci njiitalu docteur Alioune Sarr war nañ cee toog waxtaan ci xool nuñ koy régler ba cas yi nga xam ne nii mooy am mën a ñàkk parce que tey yaakaar naa ne publicité lu cher la te lu ñu war a fay la waaw beneen bi beneen boo xam tamit sunu laam ñëw na si nen daal combat royal bi beneen combat royal diggante Modou Lo ki nga xam ne mooy Ama Baldé flou total ginnaaw nag bu ñaari camp yi euh, nga xam ne am na jaxasoo si biir Luc Nicolaï en ko diggante Wili ak ki nga xam ne mooy Ray coordinateur boobu noonu nee ñi nag combat bi nga xam ne moo door dox si diggante Ama ak ki nga xam ne mooy Modou Lo total la nee ñu nag con contrat bi nga xam ne Ama Baldé moom la signé ak Luc Nicolaï le 31 juillet lay jeex Ama léegi Wili lay moom lay traiteel ki nga xam ne nag mooy euh, Modou Lo nañu benn këyit xaatima ko diggante moom ak ki nga xam ne mooy ko Nicolas Babacar muy lu yéeme. loolu de doy na waar loolu moom doy doy na waar wala mu ëpp tool sax li am solo nag mooy ah fulu total yàlla na yàlla ci yàlla def leer ba combat bi maanaam parce que lu may wax chaque jour rek que ni combat bi Sénégalais yi bëgg nañ ko ñaari mbëri bëgg nañ ko promoteur bi fexe na ba taxawal ko ci li ñu xam waaye nag bu fekkente ne Modou Lo benn lu ko lii ak wàllum Luc ci wàllum kayit loolu moom yéeme na trop ñaanuñu yàlla loolu am. parce du ñu dox ba fii ñu dégg loolu du neex waaye nag ah euh, doy na waar ki ci des tamit muy waagar ama comme ñu ngi tere tak fii ah loolu tamit nekk na mbir yoo xam ne daal fi mu nekk nii moom jaxasoo daal am na ci daal jaxasoo am na ci daal jaxasoo am na ci Babacar nee ñu nag ki nga xam ne mooy Lac Rose waa Fass am nañu yaakaar trop si moom moo tax ñu jëm recruter euh, benn médecin bu mu mën a faj moom boobu nga xam ne moo ko teree euh, bëri depuis ay at nii waaw loolu day yaakaar naa itam c'est normal parce que ku ne ci kër di défendre couleur e, kër ga ba blessure dap la ñoom ñu xëy tey taxaw jàpp ne kii espoir la war nañ ko mën a faj defe naa loolu itam lu rafet lay doon te contentement lay doon ci supporteru Fass yi contentement lay doon tamit ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa ahlu làmb yépp parce que li tax mooy Lac bokk na ci xale yi nga xam ne nii bi mu fëlee ci làmb ñëpp xam nañ ne kii mbër waada la mbër kaamil la ci arñam ak ci fulaam ak faydaam mais nag olof a koy wax àdduna mook weeru koor a rek saa yoo xëyee fekk doog jotul jubu weesagul waaye nag du tere nga faju ji comme faj la ñu bëgg a def pour mu taxawaat ñëw yàlla na leen yàlla dimbali ba loolu ñu réussir ko ba mën a taxawaat ba yaakaar ba ñu ba ñu am ci moom mu ñu mën ko gis ci moom sunu laam aussi li nga xamal ki nga xam ne euh, mooy kalmunu te Assane Ndiaye joxoon ko avance bu mu bëree ak euh, ki nga xam ne mooy Ngel John euh, gannaaw mu delloo avance bi nag ki nga xam ne mooy promoteur bi moom Assane Ndiaye moom nee na dafa fas yéene porter ki nga xam ne mooy kalmunu Babacar waaw loolu de ñaanuñu ko yàlla ci askanu làmb plainte moom yaakaar naa ne bu ñu sañoon du am ci suñu diggante ndax ñi bokkum seen ñooy laxasoo ay goj waaye li am solo nag mooy ñoo mbër yi tamit ak ñi leen yore war nañuy xool balaa ñuy jël xaalisu jàmbur ñu xool ko bu baax a baax a baax parce nit ki tamit mënu la jox alalam ngeen joxante kàddu ba pare nga xëy dañ damaat ba mu neex la nga ne ko dootul man di yow loolu itam yaakaar naa xel waru ko mën a nangu nit ki moom saa boo naan sa waaw dee ko xool balaa ngay wax waaw dee ko xool baax a baax baax ndax kàddoog waaw oyof na nii ci wax waaye lu jar a bàyyi xel la maanaam nit bu ngeen seqee dara da ngay jéem fexe yow la ngeen seq boo ko joxee sa kàddu rek jéem caa def la tout ngir matale te dégg naa sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daan na wax ne wax mu nekk yàllaa ko man moo ko sañ waaye man Cheikh Mbacke lu mu wax nar naa ko yaa ngi dégg muy Kalmu Ndour ak Assane Ndiaye nag ñoo bokk làmb ji nañu xool waxtaan nu ñu régler angle yi balaa ñu ci demante ci ay pelet ndax ñu loolu duñ ko souhaité waaw suñu jógee nag suñu laam nañu dem di xam nañu dem fi nga xam ne mooy record ci xalima Abou Nour nee ñu nag Ama Baldé mi ngi waajal bu baax combat bi nga xam ne moo war a dox ci digganteem ak ki nga xam ne mooy Modou Lo nee na nag bi yoon nag demul États-Unis France la euh, France la fas yéenee dem mais nag euh, ay quelque rek laa rek moo des pour mu mun a dem foofu xam ne mooy mooy imsal si baba waaw loolu day mooy waajali boppam xam naa ne waaw ku wal mburu tuddub dëkk waaw il est c'est normal mu dem INSEP sa waajali boppam ah c'est normal itam parce que lamb ji moo tool noonu daal te Modou Lo moom ku ko bëgg a daan ah il faut nga wërum réew nag moom parce que xam naa ne toll na noonu ci làmb amaan ah, nag yaakaar naa ne moom fi mu nekk nii képp kuñ ne le Modou mënu koo daan ci làmb ah buñ la ko waxee bul ko gëm ndax lii ne ci mbër daane ci moom sañ-sañ bi fit wi te itam lu taxaw ci kanam da koy jéem a effacé waaye ki mu bëgg effacé itam bopp bi nga ju da koo tojul waaw Babacar su fekkee nag Ama Baldé mi ngi waajal fee nga xam ni préparation fee si France ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy Modou Lo di adversaire am nee nañu ah, mi ngi fee làqatu si Lac Rose daal di defar yaram di waaja tamit ah, dafa làqatu wala dafa dafa retiré wu sax waaw làqatu mooy fa lay dem préparé wu pour ah, man buñ na ba maanaam dafa uti beneen waaw waaw ah Lac moom xam nga yàgg na fa waaye loo ci mën a dégg daal moom muudu moom Lac Rose moom daa mel ni fi mu nekk nii <laughs> hmm? ñaar ñoom daal mel ni Lac Rose fi nii est ba Eumeu ñu euh, moom mën na. naayib wala ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Lac Rose yëpp rawatina waa hôtel Arc-en-Ciel rawatina hôtel arc maa ngi koy nuyu ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, borom hôtel ba gridé itam ci waa Lac la moom bëgg na Lac trop kon daal yaakaar naa Gris de Modou Lo ak Eumeu Sène ah waa Lac Rose war nañ leen a bàyyi xel ndax daa mel ni daal saf nañ leen ñoom waaw. <laughs> Babacar nag euh, ki nga xam ne mooy record sunu lamb ak Leewtoo point net ñi nga xamal ni euh, ñu dem nag si euh, lu simple bi nee ñu ni ngi waajal dimanche le 9 le 9 février incha allah 72 heures ki nga xam ni mooy Ambroise Sarr coach équipe nationale nee na fas na fa teg juróomi nag ak 830 000 francs CFA. juróomi nag ak téeméeri junni ak juróom benn fukk ak juróom benn junni wala 830 mille kon palmarin nar na neex yàlla nañ ko fekkee te ko di nuyu Ambroise entraîneur national di ko wax ne moom itam mention spéciale parce que mu ngi dundal lamb bu baax a baax a baax parce que nekk na entraîneur bu ko neexoon yem ci mais mu ngi jël ay mis di ko teg pour xale yi di jongante te loolu defe naa ne moom ak ku ni Manga 2 Yaxya Jóob ñu ngi def lool loolu lu jar a Babacar nag ñaari euh, quotidien yi aussi ñëw nañ si ñu rek ko ak sunu lam muy euh, génn àdduna ki nga xam ne mooy Joxor Diouf euh, démb gi démb la génn àdduna ginnaaw nag mu amee ba bu ko feebar bu bu yàgg tëralee Babacar ñu koy jaale aussi ki nga xam ne mooy xaritam moom mooy Pierre Malick nekk fee si Algérie moom ak si tournoi Babacar. waaw di ko jaale waa Sénégal yëpp rawatina waa ministère des sports ak waa làmb ji yëpp parce que lu tax mooy ci askan bi la bokkoon nekkoon tamit ma mi nga xam ne ni mën nañ na mag mu baax la ndax dëgg yàlla gis làmb muy jiite arbitre yi vraiment di régler angle yi kon daal yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana di ko jaar docteur Alioune Sarr mi nga xam ne tam moo jiite làmb ji ak képp ku nekk ci làmb rek képp ku mu mën doon mais comme noonu nga ko koy jaal parce que euh, euh, dañ na xarum waay gayndeeg waay yaa ngi dégg loolu am ci àddina yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko jaal ay mbokkam yëpp di ñaan nag di wax ne daal àddinaa ngi noonu yàlla moom waxam ja du dañ kullu nafsin saayixatin mawtin fa kullu man fa kullu man alayha faaniya loolu du mas a dañ loolu am na solo Babacar si kàddu yooyu lañ leen di tàggoo di leen jox di daje lundi incha allah mais balaa ba muy nuyu suñu yaay mère Sow sama doom Mohamed Diouf nuyu Astane déjà ak Grand Fallou maa ngi koy nuyu ñi nga xam ne Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou koy nuyu di aussi Aïda Diouf ak ki nga xam ne mooy Ramos Ndiaye depuis Italie euh, Khoudia Seck ak Chéri A Seck aussi yaa ngi si biir depuis Italie. waaw du mën a ñàkk nuyu nañ ñëpp rek ja ñaanal ñëpp jàmm ah, di waxaat ñi tëdd suuf yàlla yàlla yërëm taxare xare leen aljana di ci jiital sama wayjur bu jigéen ndax mu ngi ci suuf yàlla na ko yàlla xare aljana mook bépp jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ci kaso yi te yeyoo ko yàlla na leen fa yàlla génne bañ jël siwaat ci seen njaboot ñi tëdd feebar tamit yàlla na leen yàkkati yàlla yëkkati waaw lépp lu waaye am ci tawat daal yàlla na ko buur bi saafara ndax moom mooy saafara kon bu mag bi di nuyu suñu internet yépp yaa ngi dégg duñu leen mën a fàtte Ousmane Ba ñu ngi koy nuyu Malick Sarr Mbaye Fall Serif bu ah Sarl Boy ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu man madame Diakhoumpa ak Malick Sy ak Asi Diagne ci Mauritanie moom du ma ko fàtte sama naar boobu Asi maa ngi lay bu baax a baax di nuyu tamit tuuti yaay Sarr moom duma ko fàtte Serigne Ndiour depuis itali maa ngi koy nuyu moom tamit di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñëpp waa ànd zim waa ànd jàppo zim maa ngi leen di nuyu foofu fa laay yëngale yaram bi temps yi di nuyu coach si Demba Ciss xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk foofu ñoom fàllu ak jigéen ña fa nekk ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu jigéen ña fa nekk di def zim di leen ñaanal jàmm kot su jabang moom maag moom soow ak suukar la rek boo leen naan wala boolee xooyal tur rek maa ngi koy nuyu séeri ayda non yàgg moom yàgg moom sa spécial yàgg Baye Fall la liggéeykat la taalibi Cheikh Saliou la yàlla na jàmmam yàgg yàlla na ko yàlla may soxna su baax ci mois de mars barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin ba leen incha <laughs>